frappe bu mag bi am nag ci euh, li nga xamante ni moom moo di euh, carré boobu ñuy bind au lieu de message ils ont écrit massage à la nation alors loolu nag euh, daal di attiré bu baax attention internet yi yu bari daal di koy reprendre en masse waaye yemul foofu rek ndax ñu ci bari def nañ ci ay taxaw seetlu xam le ni c'est pas la première fois ñuy gis yile faute de frappe wala yile lapsus di tukkee ci seen ay mbind waaye boo seetloo itam communiqué yi nga xamante ni moom mooy jógee fële ca présidence on pour la plupart du temps ah ma ne bu président bi moom dañ ko tooñ Ah. message la ñu bind ñu monté ko bind message. ah dañ ko monté en tout cas en tout cas ça en train de susciter un moment de discussion te yemul fii rek dem nañu revenir at ci yeneen yu nga xamante ni daal dinañu koy indiwaat par rapport li nga xamante ni moom moo di seen bind mi communiqué yi jugee présidence aussi nemmeeku ni faute yi nga xamante ni daf cay toftalu dafay bari lool alors lii itam ne ne bokk ci information yi nga xamante ni moom la ñu gën a partagé sur les réseaux sociaux ñu wax ba tey ci ki nga xamante ni moom moo di Khalilou Fadiga moom nag dañu ko confine woon ca benn hôtel bu tudd Le Relais nekk fële ca Tambacounda gannaaw ba mu jugee woon euh, Mali nekkoon cas suspect moom nag daal di nañu koy relâché mu mel ni euh, temps de confinement am jeex na mën naa rejoindre fële nga xamante ni moom moo di euh, këram. Euh, du nouveau sur l'affaire Djidiack Faye site internet yi xëy titre ne dafa bénéficier d'une liberté euh, provisoire alors liberté provisoire boobu nag jotewul dara ak euh, lu mujj li nga xamante moom lañ ko doon toppee muy faux et de faux ak association de malfaiteurs liberté provisoire bi ma tukkee ca benn billet d'avion bu nga xam ne daf ko jëndoon te billet d'avion boobu recel la woon loolu nag moo waral ñu may ko ca boobu le dossier liberté provisoire mais il reste njiitu réew mi waxee moom xam ne na ni il est très imprudent et prématuré de reprendre les prières dans les mosquées maanaam d'accordul benn yoon ci li nga xamante ni moom moo di reprise wu yooyu les prières ndax jàpp na ni moom euh, sénégalais discipliné wul à ce point et bu ñu naree ubbi yooyu la jàkk ak juma pour fukk ak ñaari nit di ci julli ñu jullee ko suñuy kër moo gën lii tam ci information yi nga xamante ni moom la ñu gën a partagé sur les réseaux sociaux Bara Gaye njiital Clean Oil ak euh, soxnaam ak ña nga xamante ni ñoom la ñu tegoon loxo loxo daal di nañu leen di euh, euh, libéré waaye itam tëj leen deux mois de sursis ak ku ci nekk en amandu ñaar fukki junni baaragay dong la ñu daal di relaxé ndax euh, moom pratiquement moo ñëwoon ca yëf ya très tard ku ci nekk nag daal di ngay jàll aux aveux ñaaxariñ loo moom xam le na ni borom xew mee ko invité woon pour visibilité Adja Diallo ba mu taxawee ca kanamu baar ba dafa daal di ñaan ñu baal ko waaye itam xale bi xam ne na ni na leen plusieurs fois ne police ndax moom bëggul euh, daraay euh, xumbu xumbu nenne ñu jeexal peut-être ak euh, Samba Sine alias Kouthia nekk ab comédien fële ca groupe Futur Média moom nag site internet yi daal dinañ ñu xamal ne dañu ko testé positif au Covid 19 bokk na ci neuf yi nga xamante ni ñoom lañu wax ni seen situation dafa critique ñu koy ñaanal yàlla bu baax mu fëgg boppam site internet yi xamal ñu ni itam au sein du groupe Futur Média ils en à leur septième Euh, personne bu nga xamante ni daal di nañu koy test daal di nañu leen di tester aussi ñu positif au Covid 19 mu mel ni tey yeneen i résultat dina génn ca test massif bi nga xamante ni daal di nañ koy amal foofule ca kër gi alors information yi nag vraiment ça est en train d'alimenter énormément de discussions nen sur les sites d'aucuns disent pourquoi on dévoile l'identité du malade d'autres disent que c'est normal peut-être pour alerter ñi nga xamante ni ñoom la nekkal en contact en tout a am bi nga xamante ne moom lañ stigmatiser bi de maladie ku feebar dañ ko war wax ñi feebar ñu wax leen kër yi feebar ñu quarantaine leen loolu mooy dëgg maintenant nekk fii nag di di di di di wax lii lañ war a def ou lee lañ war a def je pense que ce n'est pas la bonne solution à l'heure actuelle de la maladie